jërë ngeen jëf borom fetal gi Moustapha Cissé Lo El Pistolero ay balle perdue moo xëy di jógee ci yéenekaay ñu xëy ndool ubbi l'observateur ay waxam yu dara réseaux sociaux yi di ay saaga yu ñaaw te ñu ne ci moom honorable député Moustapha Cissé la jógee di ci daggal ay saagay nday Farba Ngom ak Yakham Mbaye mi ñu ne dañu ko tuumal ne moom Moustapha Cissé Lo dafa jalgati jiwu gerte waroon dem ci baykat yi l'observateur nee nañu loolu andi coow ci ne jéem nañoo jokkoo moom Moustapha Lo ngir leeral yëf yi jéem nañu ba sonn waaye antuwul doom ja di saaga yu ñaaw yooyu ñuy dégg jógewul ci bàyyam Moustapha Cissé Lo ndax bàyyam moo mag loolee leneen li ñuy wax it ne Moustapha Cissé dafay démissionné ci instance yu parti bi di APR des di doon militant simple l'observateur ne nañu loolee te doom ja weddi ko ba mu set wecc journal bi tegal ñu ci ne waaye ak lu ci mën di xew porte-parole national bu APR di Seydou Gueye xamle na ne secrétariat exécutif national bu parti bi di APR te président Macky sax ci àdduna bi libération nañu waa Sénégal ñoo waaru ci wax ju ñaaw jooje ñuy dégg ci diggante kilifa yu mag ci état bi journal bi dem bay méngale APR ak parti boo xam ne fa la wax ju ñaaw sampe la Sénégal nañu ñett ñi mu di Farba Ngom Yakham bay ak Moustapha Cissé Lo li ñu dëkke mu di weranteeka weeranteeka wërante ak di xaxaranteeka daggalante saagay ndey soog bu rëy la def ci askanu Sénégal anki dina kay gis ne jëf ju ni mel du askan wi rek ñoo ci amee ñëgg-ñëgg yi ci boppam amu wax lay exposé le quotidien nañu ay mënut a weesu bàyyi deena loo di Moustapha Cissé moo débordé bu nuppi ne dafay démissionné la tribune nañu ndombay tànk ya amoon ci assemblée nationale moom Moustapha Cissé Lo ak cër yi ko joxoon ci biir APR lépp la fas yéene dajale delloo ko seeni borom nee nañu dafay démissionné ci poste premier vice président bu assemblée nationale des di doon militant simple ci parti bi les éco nañu borom parti bi di Macky ci la nekk ci commission de discipline bu APR bi Abdoulaye Badji la Abdoulaye Daouda Diallo Bonoan Samb Abdou Mbow Omar Gueye Awa Gueye ak ministre d'État mbay Ndiaye mi wopp si la ne bu ñu jiitalee dëgg ci yëf yi ak réeroo du ci am te réeroo gi ci jotaam dina am saafara mu ne dëgg gi mënut a weesu service ci mel ne cadastre ak urbanisme génn xamal nit ñi ne Pape Babacar Ngom Sidima suuf samu yor ca Ndengleer sàcc ko wuruju ko njubla nga ko mi ngi ki kayit yu wér te wóor yu wane na li mu am yoon la ko amee Assane si laa ne te naa la ka nësër bu sottee askanu Ndengleer ak ji ñaax ñooy njariñ li bëgg intérêt bopp sa bopp waruta tax Pape Bassirou ak ñu mel ne ñoom bëgg xëpp suuf ci projet bi wala di wër di gàkkal deru Pape Babacar ginnaaw coowal suuf loolee journal Grand Place mi ngi ñuy yëgal leneen coowal suuf lu nar a wunnee ci ci réew mi jile yoon ca commune bu yenn la journal bi nañu ñenn ci askano ñooy tuumal maire ba ne colline Sacré ba ca yenn la bëgg a dagg def koy pàkk coronavirus bi far dagg pàkk ci dëkk bi ba dëkk fi journal Source A mi ngi ñuy xamal ne ñu weesu juróom-ñetti doomi ñett yoo xam ne ne seeni borom sonn nañu ba nekk Sowetaas libération nañu bakkan yi coronavirus bi tëral ci réewum Sénégal dem nañu léegi ba toll ci téeméeri doomi aadama ak fanweer ak ñett professeur Moussa Seydi di leeral ci xët mu njëkk Soleil national taxawaayu fajkat yi ci feebar bi mu di prise en charge médicale ci wàllu Covid bi fa xam leen ne ñi coronavirus bi faat ci réew mi téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak juróom yi maanaam yi dañoo yeex a yegg l'hôpital pajum ñu ci doon wax te ba na dañuy wax li tax ba garab googee di Madagascar yegsi ci réew mi te ba léegi fajoguñ ci dof du wér fu ñu ko déggee xel dem ci mbër mi di Eumeu Sène ak waa këram di écurie Taïshinga lise ko nañu otop Range Roveram bi ñu sàccoon ak coow li ci am ba nit faatu ci nar naa compliqué ci ñoom Eumeu Sène ndax ñoo nga ciy dégg waxi boom doomu aadama mu di meurtre autopsie bi ñu def ci ndem si Yàlla Ibrahima Touré lise ko nee nañu dafa gën a dugal ñoñi Eumeu Sène yi savonu Marseille Alfé seen gamme Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm na ko noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM lu ñeel parti bi di APR ak njiit la Macky Sall mi sàkku ci commission discipline gi ak sëgg ñeel mbir yi Moustapha Cissé Lo ginnaaw yi saaga yu ne euh, moom la ñu ko moomeele mu jagleel ko ñenn ci naatango mu parti bi di saaga yu ñaaw yu soxna si jiite mouvement des femmes benn bokk yaakaar Fatick rafetluwul benn yoon soxna Thérèse fay dafa gis ne duyu yu euh, kilifa te it euh, njiitu parti bi ci boobu Macky war na ci jëli responsabilité yeneen yu sud ju syndicat la bu ay liggéeykat ci wàllu yoon dañuy ñaawlu benn ñu ne lu gi jëwriñ ji nu bootu maître Malick Sall boole ci seen i tawat naka noon it ñàkk doxale gi ñeel accord yi nu signé woon seen digg ak bu Sénégal seen o tontu na maraîcher di yëngu ci wàllu mbayam noox ca leen deng ca tëngeej ginnaaw ñàkkum ndox ak perte yëmu leen di jural ñu ne këru ndox mi xam leen ni jamonoy ñàkkam ndox ci réew mi njaboot di ñooy yitteegu njëkk gi laata yëngu-yëngu beneen ndox mi ci kaw gi ki jafe-jafe li ko mën a saafara wala doon ca njëlbeenu saafara ci gis-gisu baykat yi fare ci ak Njaareem mooy euh, ñu daal di réformer tëggaat ci lu xóot lii di hydraulique rural bi di wàllu ndox mi ci kaw gi cim ndaje ca ndàngal ma la ñu daal di fësale boobu gis-gis ak xalaat démb ci dimanche ji Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ca kanam tuuti seen émission daan coronavirus ak RFM. Choisir votre gamme. C'est boo leen a dee eh. dee leen tere dem hôpital laa wax professeur Moussa Seydi

fanweer ak ñett dee ci ay doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna a rajiun ah maa la ko wax dama ne leen lu tegee juróom fukk kon fi mu nekk nii ñu ngi sowe taas université dañ koy ubbi de ministre enseignement supérieur ci tribune yéene kaay Vox Populi nee na université waaw benn fan ci weeru septembre bii di ñëw de lay ubbi waaw waaw te waaw suñu kilifa yi de da ngay saagante biir allahu akbar la ilaha illallah dama ne la république ba yàqu Eh, waaw daal dinay xotti nag war mu Macky Sall ak waa këram déedéet kay ah kay vox sobli ne moo taxit président Macky Sall de waaw daal dinay yóbbu nag Moustapha Cissé Lo Seras gars yi dañ koy rey terminé may ma yeggali may ma yeggali dama ne ci fan yii di ñëw de waaw coowal Moustapha Cissé Lo yaa xam mbay ak Farba Ngom waaw la ñuy bëgg nag di waxtaanee kon ci grand place yi de mardi tali waaw moo taxit Moustapha Cissé Lo daal dinay tekki ndomba banqaas yi nga xam ne fa la na nasee ko notti de ci biir APR léegi daal Moustapha Cissé la simple député la simple militant la yéene kaa gi ne lépp nag ka nga jollee de ci musiba mbaa yi nga xam ne ay saaga yu doy yu dox nag ci diggante responsable APR yooyee Cissé la yaa xam ak Farba ay audio yoo xam ni de waaw saaga yu doy waar yu ñuy jagleelee kon Farba Ngom mi le ak yaa xam mbay ndaxte ñoom ñaar ñooñee ah dañoo tuumal Moustapha Cissé la mi le ne ne kon ab xaalis ci bu am doole wàllum gerte ga la waaw enquête yéene kaa ne république bi de waaw gars yi nañ ko de dama ne la kay ma nga ca suuf te ay saagante yu ñaaw ay tuumaalante yoo xam ni ko ñu doy waar doy waar maam lees Camara ah président de la république ci boppam de moom lañ na waa nga na tëral mbedd ma moom lañ exposé dëgg la donc soob li ne moo tax it Macky Sall daal di ne sàkku na ci commission de discipline o APR ñu daal di réunion kon a ko bi lay réunion Macky Sall kay dàq na Cissé Lo nag laa la wax maar day taali exclusive yéene kaa ne waaw saaga yi ñaaw ay mbirum jaam jabaru jàmbur saga sàngara xat dof ak yeneen ak yene sax maanaam ay jokkalante yoo xam ni kon ay kàddu yu mbirum sauvage yëfu àll rek lañ fa def de ginnaaw nag ba leen Macky Sall joxee ñu lekk ba rek moom yaa xam may mi lé ak Farba ak Cissé waaw seen yëg seen bopp de moo leen yóbbee lii tey lii tax ba grand serigne de Dakar Abdoulaye Matar Diop waaw ay daan la ñu war a daal di koy teglee wax ju ñaaw ji lée loolay dëgg sala gay analyste politique la sénégalais waaw nee na justice bi kay fi mu nekk nii am na liggéey dee nag dafa de la République Serigne Bassirou Gueye dara tënku ko wax yaa xam mbay ci wal waaw nee na de la République bu dee jëgul waxal boppam danañu ko yëkkati tey te dana wax mbir mi sax ni mu demee dafa mel ni war mawu Marème Faye Abdoulaye Sall moo gën sama bu waajuru jigéen man yaa xam parce que Moustapha Cissé Lo mi ne bañ ko waree tëj du tey de léegi nag moom mooy wut luñ ko tegee loxo yaa xamee wax ci Walf Fadjri de laaste en tout cas askan de am nañ lu leen miti lool sous le choc dëgg la ay sulli wante ay mbóot weerante saagante ca kaw nguur ga nag laa ay meeru ñu mi le ne daa laal ay tonu gerte ay meeru ñu ngi tam dafa bëgg setal deru jabaram de 24 heures yéene kaa ne soo bëggee dégg de Moustapha Cissé Lo waaw daal dina yëngal gësam lii di république bi direct news de waaye Moustapha Cissé Lo mi ne ah dañ koo tooñ wala moo def looloo jar a laaj lan moo tax ñu xaar ba tey ji la doog a génnee audio Cissé yi la Moustapha Cissé Lo de keroog ba mu waxee ca koppar gi xam ne moom lañ jaglelee ministre de la santé ba léegi ni lée la gaa gaawal mbir de lu tax kàddu yi Moustapha Cissé yi ci ab cadre privé la amale yoo xam ne warul woon a génn ci mbedd mi xanaa xamoo leen ne Moustapha Cissé Lo ko ndax dañ koo enregistré siiwal ay vidéo ci loo xam ne kon jaarul yoon Mañi Njaay nekkoon fi ministre kon ci sursa waaw nee mënuñoo tëj Assane fi kaso bi ba pare daal di fay nag Moustapha Cissé Lo mi lé muy doxi soxlaam laa la wax Babacar Justin Ndiaye ci direct news waaw nee na ci boppam kon ñoo namm nag homme d'état ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb waaye fasu àll tey yilee nekk ci état bi waaw final nañ ñu de fitna gi ci mbay mi de a génn nguuru googe parce que opérateur yi de mafia lañ cay def laa la wax Dakar Times de coowal suufuk sédiment gale ak ndengeleer waaw tey ma wax leen ca la ca am de parce que dossier ndengeleer boobe génn na ca ëttu dëkk a yàgg na ca teere santas ba kàcc ak wàllu laa la wax parce que nga coowal Babacar Ngom sédiment mi de lan moo tax mu jaaxal ñu bare bari waaw lan moo tax ba ñuy yàq deram noone ah daal di fii bàyyi français yi du total ak indien ba ci libanais yi nga xam ne kon ci suuf si la ñu te askan wa yeewoo te ndengaleer googee waaw ña ngay négocier de ak Sedima Assane Sylla président MPS ci tribune yéene waaw nee na askan woowee ci boppam kon dañ leen di manipuler ay politiciens yu mel ni kon ñoom Jomaay Fay ñoo ne ca suuf parce foofee nga xam ne moom la ñu jox Babacar Ngom Sedima de dama ne la bokkul ca ndengaleer diggante ndengaleer ak jilaax juróom-benn kilomètre la la wax Assane soxla lu toll ak junni ak juróomi téeméer ci ay doomu adama fas yéene dëkk ca gox yoo di liggéey ca projet ba lii la Sénégal soxla le quotidien yéene kaay ne armée a dellu si nag waa justice day ña ngay attaqué ministre de la justice laa la wax na ci boppam kon moo nekk ci ginnaaw ñi dal ci kaw ministre de la justice bi déet waay ah kay wàllum justice koo kay enquête yéene kaay nee na nga xam ni kon nañu koo rey nag ca buntu kër Eumeu Sène enquête ba meurtre la wax de gars yi dañ koo rey de l'observateur ne Eumeu Sène ak ay lieutenant te dugg nañ ni ruba de ci deewu Ibrahima Touré mi le maa la ko wax sur quotidien inondation yi te diggante 2000 ba fii may wax ak yow waaw ay milliards yi milliards lañ ca dugal laa la wax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 kumba am ndey ak kumba amul ndey la réew mi di dund. alaaji yàgg naa la ko wax. Ablaye Wade jamonoom. def naa ak deful. jël na fi ay nit yu nekk ak moom tëj leen ci kaso bi. ñooñu dañu leen doon xeex ndax wàllum politique ngeen xamuñu. en tout daal ay dossier lañ fi tudd. tudd nañ fi ay dossier chantier wu Thiès. tudd nañ fi ay ay ay ay dossier ci wàllub euh, énergie courant. tudd nañ fi euh, yeneen ak yeneen. Mhm. léegi nag ñoom dañ doon régler seen i compte politique. Mhm. moo nit di yàqal ñenn ñi pour tëj ñenn ñi kaso. Mhm. seen i mbir la waaye daal gisoon nañ ci jamono jamonoy Ablaye Wade. nit ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon seen biir parti. ñu leen jaaf di leen tëj ne dañ leen di jubanti. politique la ak du politique nag loolu ñoom rek la. seen parti la. waaye kii na fi tey. li ñu tuddal waa këram ji ci ay tojaange ki giraawaale ki jëf yu ñaaw. te amu ci kenn koo xam ne inquiété nga kenn lañ fi jot a dugal ci kaso bi. mooy Bougazelli te ma nga ne génn di lambar lambari doxi soxla rek ci koo xam ne ab délit économique la ay mbirum faux ay Karim Xurum Xaax ñu bàyyi leen ci biir kaso bi. Mbañ Njaay wax na ko. nee nañ Assane Diouf tey mënuñu koo denc ci kaso bi ndax lan nee nañ ay saaga tey ñoom ay punkal. te li nga mën a baal. xam nga déggatoo kenn wax Ablaye Wade courant bi Ablaye Wade ndox mi Ablaye parce que Ablaye dénkatuñ ko moog waa këram. Mm. Macky sal nga dégg nit ñi di wax. Mm. li nit ñi mën a baal. Mm. régime yi dem. bokkul ak ñii nekk fi tey jii ñoom Ablaye Wade fekkee wu ñu mbas mi. Mm-hmm. yore na mbas mi ni ñu nekku ci moom. Mm-hmm. ne fi tey la ñuy wax. lu ñu mën a jéggal ñeneen ñi mënuñu koo baal mm-hmm. ay responsable ay punkal yoo xam ne suñu destiné wu réew suñu ëllëgu réew mm-hmm. ñoom lañ ko dénk mm-hmm. tey ñin ñoo waroon am nuñ taxawee ñu ne ñii defuñu seen bopp ay kilifa te moo ni kilifa lañ de parce que nit ñi dañ leen di déglu bu ñu xeeb position bi yàlla jox leen bu ñu addoo ay millions millions sénégalais ñoo leen di déglu ñu nekk ci rajo bi di def yëfu gone di saaga di def naka su dul noonu xanaa ñin sax waruñu